waaye dangay xaar bu tàkkusaan rek nga ñëw rek togg sa benn togg rek nag dëkk bi calme doo dégg ñëw dina de ndaay weer bu baax weer beneen weer bi yàlla di jégal jaam yi di leen goreel weer boo xam ne boo defee benn ñu fay la fukk weer boo xam ne weeru jéggale la ak jéllale loolu saraxe yàlla defal na ai tia ba tia về đi nát thế nào lắm bên này yolak là là đi đây đây muốn được cài của ông sẽ mau về ông ôm rồi đó đây một bầu nó đâu đánh lại được yo đây là cái nát cái đây Budi, eh, bunga kau Mẹ muốn mo. May cái gì ở dia nào? daaw laa del gis nit ki ndaw rek ñu foog ne amul yoru dara mais danga joo xam ne ay sama nijaay moom mën a woote de ko ya suuf yow kamu dara dara dara bu ci ko wéri koon wéri koon bàyyi ñi moom maa su ba tey ma ci ménage bi da nga xam ne balaa ñi ngoon di jot rek nga sonn may profité liggéey ci kër gi ah kaza, nga yow ba soof soo amee loolu sax njëgal apa, euro nga def ah nga xool looy am maanaam suñu kàttan loo bëgg a ah bi la saf yow bëgg a dee sa nga xam ne xoolal saay da ngay dem benn course nga koy dawal mu sampal la 1000. waaw demal demal xanaa du ma soxla ay toogal. waaw waxante rek man ma yaakaar dëkk waa. ah tayal maa leen oolu woon. xam naa loolu parce que ñëw na. waaw waaw xale bi réew la. yow xoree ba dof. mais yow yow moom dama boole wutal doom yi quoi yow pour yow sa caat nga jóg. waaw. moom rek laa jur ci kër gi parce que yow mag boo xam ne yow tal nalaw rek nalaw rek nalaw rek. waa jeex na jeex na jeex na man xëduma de lu leer laa lay wax. waa jeex na tey xëduma xaw ma tey la ko man sax man sama weer fenn guddi de gisuma weer dama guddee wàcc. yow ma yeele nga ne suur nga lii yaa ma suur. mais man am di droit gisuma weer bu démb dama guddee wàcc. waa jeex na tey su ma seetloo weer guddi suba naa woo. jeex na. kon dina xam nga bett bett goo xamante ni risque bi ma defoon bi sax jeex na kala jangon na ci lislaam bi nee nañ boy booy tukki woro wo xaw ma nag bu ma jumb eh buñ jël ba saale wuñ ko bu doomu taal de mo ci oh, nekkoon xaw fi daan gel ñu ab gone sax lacc ko fa la fa la ke keur gi féetee ko xamanteni ni koñ ba lépp a changé xoolal étage yi xoolal fii ñëpp tabax waaye ben benn gënu ko dof na man sama markaat gi ma xenu ni gisal na ma trop mbaa mu xaj li ma gën a ragal sama àdduna mooy xaj ñoo siis nag dañ seen gund moom dañuy tëj rek imbécile Mam, mam, mam. Ah? Yo, yo, lihat nama dong di sini. Ih, maupun nilai nilai tak the top.

Ada, daal. waaw gis nga ko bu doon weeru koor. ak yàlla man damay woo di man sa dogal gim am ci yow moom laa am ci ci yow. waxal rek na dem eh na moom laa ne kay. waay waay dëkk ba ko rek. sa sa sama bëy yaa de. ah sa baay. sa baay ma nga fa. waaw yow bi jaay. waaw dëgg la. man dama dama def bi. Euh, sa weeru rek xam nga fii mooy gën a seetlu. Ah, waaw yow fii àll ngelaw li dafay bari tàngoor bi. ki ngay ma ne xaaral ma ñëw. Hmm. bisimilah. dafa mel dama leen fekkoon ci ab waxtaan de koor bii ak tàngoor bi ah, waaw waaw daal métti na trop waaye. Hmm, ah, kii kan la moom. Eh, soxna si la. neex na xam ne ni eh, xaaral ne man koor jaaw a jàpp. sëñ Thiam. alhamdulilah moom dafa xaw a kii léegi dafa xaw a lenkale bëri. waaw ca ci jàmm kay. ana koor gi. ah koor gi métti na de. yow bàyyi caat. caat na ngeen def. <laughs> ah caat caat caat wala wala doon. <laughs> yow nag sa baay de ah wax nga dëgg. sunu yaay ñu ne fële. waaw waaw waaw sama nijaay Cheikh. dëgg la kay. ah dañu fekk nag ci waxtaan. ñun ñëpp samay njaboot la. dëgg la dëgg la dëgg la. man yow. fii ngay ooree sa sa at. dëgg la. ah kon bu fekkee ma sant yàlla. alhamdulilah. leen bëggoon wax benn mbir. Ừ. là Minggu bak benim bilmiyorum yok. Onu da koydu, yiyorum. Teyla koydu. Minggu onu tek ben sar. Sar, wow, lu lu bak. Minggu yok, amu kale amu mak. Amu tu yai amu pak. Man misa, semua war. Sar mulu boleh tek. Hai lu kayaknya lu ya apa nhau, pun luôn cái Kalau kayaknya không kau. Bukan tek ben sar, nelayan. Kau bukan war. Don don dek, don kedu, don deki, te don dok. ah déedéet moom sëñ bi lu mën a nekkee. wóor. ah doo doog. wóor a lekk. ñàkk a lekk loolu kenn wóor la soog ñetti mburu ngay jënd. ñu fay moom amu ci moom. man dinaa ko war ne moom nga fi teg moom ay am ay ku wóor euh, doo doo doo togg doo. jaroo moom mi nii maa ngi wax mu may dog. nga xam nga lii du yoon. moom dafa may siise kër yi tax xamatuma nag yow. taawu boole ñoo ñoo. dëgg la wala dëgg. sa baay ma lang moom demoo nga xam loolu Wah, it waaw waaw nga dafa réew waaye man na dinaa sànni tuuti kàddu dinaa sànni tuuti kàddu kàddu yi ma ci sànni bariwul sa règlement dafa gis trop man li ma ko gisee man mooy ku wóoru du ndog xëdd si waaw nah, waaye nah, kan man am ñun nag ay magam ñoo wah, léegi du ñàkk a woor waaw moom moom xam naa kii ngay waxaat caat moom xam naa bu wooree ba midi rek jox ko ab soow rek mu lekk moom amul problème moom amul problème moom mën na lekk amul benn problème kon baax na man moom sama mau bi daa mau ni. mais loolu nga karaw gi war nga aku fekk mbami nalaw nga tayal ko fi ngom yow rek laa doon xaas mo wallahi kii mën sama nekk mbaa defaloon nga ko ah soxna si ah yow da laa nopp de koor gi teel laa dugg de ah maa ngi fekk ci fi set kay ah loolu baax na xaaral ma dem ci biir waaye noppam waaye yëgale jàmm jàppale ko bagage sama caat caat kay caat dëpp la waaye war na am rakk nag war na <laughs> am rakk Billahi dama ko xamal mbaa yaa nga ah billahi eh, eh, eh, wallahi. ah guddi bu ko ko wasee eh mooy loolu. jox ko li moom nag astafurlaa dañoo wax ah nga ci lii ko la moom ko li moom. ja gaaw ñu añ. ci ah sejam yang yàgg naa xam ne. naan ñëpp ñu dawali dawali ndax fee woote ah baax na ma ni muy am na danaa fi teg maa ngi engagé lii de man du may woo.